jërëjëf mbokk internet yi safoo di seetaan site bii di wasaare société ginnaaw ba ñu leen nuyoo ngeen taaxir lu ñu jukki leen di fi jota ruusandi ci ay xibaar doxantu ba fële ca diwaanu fim laa fekk fa njombe wala sax kaw kaawteef bi nga xam ne moom moo fa daal di xew benn xale bu jigéen bu doon def seconde moo daal di fat faram ci faatin bu doy waar gannaaw guddig mercredi rek rek ci la jël far bi daal di koy jamat jamate ñu yenu yóbbu hôpital ci jeudi bi rek après midi ci la far bi daal di ñàkk bakkanam fële ca hôpital bu Fatick yooyu nag nekk mbir yu doy waar ndax far bi mu ngi yoroon moto jakarta di ci daan dooleem gannaaw bu jigéen boobu rek ba mu defee njombe loolu wala sax kawteef boobu dafa daal rek daw jamono yu ñuy àddu ngeen di teewlu nag yoon mu ngi def liggéeyam ngir mën a teg loxo xale bu jigéen boobu boobule ñun nag dinañu woy di topp li nga xamante ni moo di information boobu lu fi jotaru sandi dinañ leen ko jukkil jërë ngeen jëf ci topp bi ngeen ñuy topp ak taamu bi ngeen ñuy taamu